asalaamaaleykum wa rahmatulah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi Kër Mbay faal wala Mbaaw wala loo ci mën a dégg daal ñu ngi ci banlieue bi li ñu feen di nag lenn la làmb dafa am ay jeunes yoo xam ne dañoo dëkk fi nga xam ne nii moom moo di ci mbaaraan maanaam Fissel mbaaraan ak li ko wër dëkk yooyu parce que boo ne mbaaraan mën ngaa lim mbaa fay mën ngaa lim ay ndagndam mën ngaa lim ay mbel xawul dëkk yooyu yëpp. maam defe naa ne ci zone boobu la ñuy tëgg làmb ji jóge ki ci nekk si bopp bi nag ñu koy wax Bouré Bouré Faye ànd ak sëñ Saliou Saliou juuf ak ki nga xam ne nii moom mooy Ibrahima ñoom ñoo def loolu muy Fissel production ñoo am seen parrain nag bi nga xam ne ni tey moom la ñu seet si fas ko ne tuddee làmb le bu ñu bésu tabaski non bu ñu tabaski bët seet la làmb jiy commencé ca ginnaaw suba sax ñu teg fa trois cent cinquante mille maanaam juróom-ñaar fukki junni lañ fa teg muy mise boo xam ne wax dëgg yàlla am na solo pare bi nekk ni tey ñu ñëw seet si ko euh, maa ngi kilifa gi. waaw maa ngi dellu ziar wér di am kontaan ci yéen bu baax a baax a baax di jégalu tamit ci déplacement bi ak temps bi tamit quoi xëy na ay xat-xat yu ndaw quoi mais ñuy ngi jégalu bu baax a baax a baax di bég ci yéen di bég ci sa copain sa liggéeykat ak Baye Sall ak sama ko bee Bure macha allah yàlla na yàlla àggale yéen bi daal am nañ kontaan ci yéen bu baax a baax a baax. ñoom ñu nekk jeune nga nekk jeune ñu jël tey bés tudde la ko lendemain tabaski ak sur lendemain tabaski ñu teg benn mise ca Ficelle Mbadane muy trois cent cinquante mille Ficelle production tey loo yëg bu ñu ñëwee déplacé wu ñëw sa kër ñëw seet si la. waaw xam nga tey nit yëg yëg moo koy fay quoi. Bure dañu yàgg nekkul lii moo ñu boole man ak moom sam papa moo ñu bokk yar quoi. moom ay yére loon jaay comme ñun Sandaga bu demee tamit jamono di dox di dox di dox ba mu dugg ci affaire yu mel nii tamit bu tourné ba ñëw def lii tamit maanaam magam la ko defal quoi kon du duñ def lu am contentement bu baax baax ci événement bi di ñaan yàlla yóbbu ñu ci bu baax baax dem ànd ak réussir total ak jàmm ak salaam ak mujj bu rafet quoi waaw. Euh, làmb tey bu euh, maanaam dañ leen a bokku a bokk ku leen yar làmbale maanaam kon li leen boole du làmb jiitu na làmb ñoom itam loo leen di wax en tant que ñoo xam ne ay xale lañu jël seen xaalis bu toll ci trois cent cinquante teg ko sans compter nag yeneen fas yéene ñëw dugg ci làmb tey jëkki ci yow compagnie loo leen di wax. waa xam nga man li may faral di wax rek business amul sentiment nit ki lépp loo mën a nekk gi ci sa bopp man ci dimbali sa yaay ak sa baay rek c'est parce que ni loolu leew na doom te doon xale teewute am jom moom xam na li may wax bu baax a baax a baax man liggéey laa gëm te ci laay dox. te bu fekkee xaw ma ko ci loolu tamit yàlla xam na ne bu ma rek bu ma ko woowee du ma ko du ma ko sax jël téléphone parce que man du ma caaxaan mais damay am kontaane bu baax parce que ay sën lan quoi ñoo jàppalante suñ biir dimbalante suñ biir bu dee sere xaalisam tamit somme du tuuti du somme du rëy te da olof Njaay day faral ne bis du tuuti borom lay tolloon man dinaa jàpp bu baax baax a baax bu baax sax yàlla xam na ko maanaam ci jàpp ba ñoom ba ñoom ñu yëg ne jàpp nga ci daal waaw parce que xam nga nit ki fa romb ñëpp xam nga fii mbaaw la Sandaga ña ko yor ña nga fa am na ñu fa xam ñeneen ñu dul man kon su rombee ñoo ñëpp tuddee ma ko tamit damay am kontaan bu baax euh, te wan ko ni ko tamit yéeg yi ko koy fay quoi incha allah dinañ def la tout ñu teew ji te dinañ ci jàpp suñu kéem laay kàttan liñ ci man incha allah. kon da nga déplacé wu mbaa wutali mbaa euh, Fissel Mbarane incha allah rabi. waaw euh, dinaa def la tout dinaa ko def moom parce que programme moom bari na trop. yàlla xam na ne moom mooy quatrième personne yoo xam si ne ay ay comment des ay parrainages yu ma jot ci moom mais. bosom intéressé na ma trop parce que waaw moom mooy tëgg ak Jéba euh, Thiès ñoom ñëpp woon nañu ku ci nekk envoyé ma say par extra extra mais bosom moom naa def le tout pour teew si incha allahu rabbi waaw am na solo mu mel ni kon loolu defe naa ne yëg-yëg la mbokkoo la àndandoo bu yàgg la euh, tey euh, làmb en tant que parrain sénégalais nga tamit da ngay dund làmb noo gisee làmb waaw xam nga làmb suñu sport national te gis nga dafa neex quoi ñun ñëpp a ci maa ngi nii sama peut-être xëy na jaar boo jàpp yi mais bu génnee man après làmb laay sàppe parce que affaire dafa am YouTube damay dugg sàppe làmb laay seetaan fii laay tëdd sax tey fii laa fanaan dafa ma neex quoi billaahi c'est seulement par affaire la quoi nan leen ànd ak sincérité ak jukko bu rafet quoi bañ a yàqante bañ a lu ñaaw bañ a waxante ñaaw ñu def ko ak despiling quoi buñ ko defee affaire bi dina neex te nit ci tamit dina gën a yaatu quoi te ñëpp dinañ ñeme quoi sincèrement parlé am nga mbër waa xam nga nag <laughs> dama ci bari xarit <laughs> xam nga Siteu sama xarit la waaw wax dëgg yàlla tout moment ñi ngi dégg nañuy gisante sama waay la Balla la Omar Sakho sama waay la Modou Lo sama xarit la Eumeu Sène sama waay la <laughs> mi kon bëri ngay mbër de xarit nag moo tax naar naar bëri ngay mbër de waaw xam nga xam nga tey Olam Dia defar di wax ne nitu ñëpp far waru la wala asim loolu la rek te man ku ma yëg ma yëg la quoi. ñoom ñooñu nga wax actuellement ku ne xam ne bëriwuñu c'est ta papa lay bëreel xanaa foofu am na foofa. waaw Siteu laa faral <laughs> Siteu xam nga Siteu laa faral moom <laughs> waaw parce que euh, conférence de presse bi rek man ma kii bi maa ngi fan open de presse bi rek man maa ngi fan maa ngi fan boo xoolee quoi. Iba Mar Iba bi noonu. ñëw naa mais après dama làqu si ginnaaw noonu rek <laughs> waaw. Balla it ku far. Balla laa faral tamit. waaw. waaw. <laughs> yow sa mbër mi kër boo déggee li ko Papa wax am nga yàqin ne Papa Sow man euh, euh, li mu wax ci Siteu mu ngi mu ngi Siteu nee ko liggéeyoo entraîné woo. non xam nga tey wax ak jëf dafa doonul benn kii xam na li may wax gis nga nit euh, Olof Ndiaye day faral di wax ni yàlla bu la jege laal ko mu yëg laal nga ko <laughs> bu la soree <laughs> nga jëf jëfinu ko yàlla sori quoi maanaam ay affaire liggéeyoo liggéey nga nangam naa bi Siteu ko man Siteu Papa Sow Siteu boo la man bu sax son da koy duma da koy daan bu la neex ñu teg ba te man boo tegee ma teg 1 euh, million. Euh, man man kay yàgg xanaa yàgg bu rëy teg man kay du ma teg. <laughs> baaxul <laughs> kat yàlla xam na ne ku teg 500 ma teg 1 million. moom xaritu Papa Sow la moog sëñ daam. wol ma ko Papa Guèye. <laughs> andil 500000 ma teg 1 million ñu jox Babacar mu téye barke Serigne Sali boo ñemee. Hmm. non saa yi doole doxul jàmm nag booy xale la de. déggoo ma la. man naa teg un million ma teg cinq cent mille man damaa gëm li may def de te du ma waxatu. maanaam yow yow daal li ngay wax ni foo ci bëri nga ko teg ci ëpp doole ci dàq xeex wala ci. du kaar ëpp doole gëm-gëm la fii nit gis nga jant sa bopp gëmee ni fii laa war a ak lii laa war a am barke Seydina Mohamed da nga fa yàgg. ay yii yëpp deuxième la rek doomu aadama fi nga bëgg àgg sa bopp yow yaay mébét nga ni fii laa bëgg a dem te di fa àgg. Papa Sow am na jàppale te mën naa bëri de. waaye saa yi Papa Sow maa gën ah baax na gaa yi farm ba fi nekk comme nii rek <laughs> doole si biir lay nekk. <laughs> Hmm. Eh. maanaam da nga gis nekkoon la fa nekk du doole. non du doole air la. air waaw. <laughs> loolu waxi naar ñaan la le parrain de euh, de de de ah. pour lan lendemain tabaski ca fisel mbaadaan parce que tamit loolu da ciy bokk parce que day dund làmb parce que ku dem bañ pare ne la làmb defe naa ne da ngay làmb ba pare nga ne Modou Lo suma nit la Balla Gaye sama nit la Siteu sama xarit la Eumeu seen tamit cité na ko ci ay nitam euh, defe naa ne Bouré tamit war na mën a ñëw ma wax ak taan ak moom Bouré kaay parce que kaay toog ni parce que moom moo moom moo moom moo ànd ak ay nitam te toogal Buré nag day mel ni ku xaw a kii moom xam naa dafa dafa tere dafa dafa am taalib bu mu dafa am taalib ba xaw ma daal kii ba mu ëpp daal Buré maa ngi lay ziar. maa naar nag tey xaw naa ko mere tuuti de. déet waay suñu xar lañ ñun ñëpp de. waroo ko mere de ah, naar kat dama man retard ba daa yàgg. dëgg la ñu ngi koy jéeglu bu baax a baax. Ah, ah. dinaa naar la moo nuyool. waaw di nuyu sama gars yi ñëpp. Mhm. di bi mu ak Ibrahima mi. Mhm. xam moo taal otom indi ak Baye ñu ñëw seet sama doom day naar mi. Mhm. waaw di nuyu waa kër gi waa ah, kër gi lu tax suwaawu naar pour drapeau bi. waa maag mu naar dañoo yàgg. Mhm. wax na ko papam moo ñu yar ñun ñëpp. Mhm. parce que bi papam di ma jël di ma dugal palaasam boobu mën moo xam ne cinq mil ak mille francs ñëpp woon ma ginaaw mu ñëw teye ma. dugal ma ci biiram boole ma ak njabootam. kon loolu mën ma ko fàtte quoi. loolu moo tax nga di ko delloo njukkal. loolu dama koy delloo njukkal maag moom ñoo bokkoon bokkoon nañ benn néeg at. yaag naar mi. parce que kii yàlla xam ne comme lu mu wax ne loo gis gëm-gëm la moom daa nekk ci moom. parce que maak moom ñoo nekkoon benn kenn mais chaque jour mooy njëkk a xëy. Mm. daanoo liggéey par moom daa beroon boppam loxo yoo xam maanaam day xel boppam du xelul kenn su bu ko neexoon day naan damay xool si alal sama papa. Mm-hmm. ma weexee mais da koo woon ginaaw day ñeefeli boppam. waaw réglé li boppam. réglé li boppam ba am lu mu am. kon lu ma def nii gëm-gëm moo ko ko may. Mm-hmm. du ñu doon bàyyi foofu njëkk xëy mooy mujjee wàcc. Mm-hmm. sakku dañuy bàyyi ci kër gi dem dóori waar su wàccee suñu wàccee encore foofu balaa mi wàcc presque dix heures mu soog dugg si waat ci kër gi gon dafa gëm boppam mm-hmm. macha allah moo tax tey nga choisir ko delloo ko njukkal ndax jaar-jaar boobu ngeen am dëgg la loolu kese la maanaam borom baax la encore mm-hmm. soo maa suñu mosoon tase rek maam lu baax rek la may conseil lu baax rek la may conseil di ma naan bu dee jaar nii defal nii defal nii mm-hmm. so ma gis ko koo xam ne encore kooku ko jege am jom muy ay dëmbooj ay Mbodj maire de Bambey. ah sunu yaay ay Mbodj. yaay Aïda Mbodj waaw. parce que kooku maanaam suñu amoon ku mel noonu fiisal. Mhm. yaramam fiisal day raw ci kanam lay jëm. waaye fiisal amul ku mel noonu. non ku mel noonu ab gisuma ko fa de. Uh-huh. ak lu muy teraanga bi muy defal waa fiisal. yàlla xam ne gisuma ko maire ba dañ jóge fa dem mbootaay mi dem yëkkati xaalis ba di jox leen. kon loolu mënuñ ko fàtte quoi. Mhm. bi ma gisee kii di tabax entreprise. Mhm. tudde ko na ko tudd naa ko ay Mbodj loo xam ne ay magasin boo xam gars yi dañ fi nekk ci pour jaay mu tudd ko alima mën a kii na xamante ne ko am jom parce que a bi ma ko déggee dama ne kii raw na gars ne ma lu tax ma ne ko parce que kooku noonu dafa gém boppam nangoo liggéey amul caaxaan so lépp lu muy def ci fulag fayda la bu mu déggee xamante dama ne kii raw na parce que mën a liggéey ñoo ànd billaahi dërëm ak dërëm dañoo mën a ànd dëgg la suñu yaay dem boo ñu koy nuyu di ko ziar dégg naa sa way juróom bu jigéen daa génn àddina fan yi ah. maa ngi dégg loolu yal na ko yàlla yërëm taxare ko yàlla ko ko jaal di ko jaal waa département de Bambey parce que ñu ci département de Bambey bokk ndax man ak yaay laa dëkk te ak yaay ci département de Bambey la bokk boo xoolee délégation ñëpp masha Allah jaara ji naan sax ñu ngi koy jaar ñëpp di naan suñu yaay bu baax la dafa ñàkki amul benn ki ñaan daal maanaam ñëpp lay amal teranga xamul fii la bokk fii la bokk bu ko neex day naan maire Bambey laa du lijjanti kenn parce que yàgg nañ ko tudd ay drapeau fii sax muy ñëw fi maanaam da nekk na nit koo xam daal dafa oyof dafa oyof loo ko mos a tudde day déplacé ñu taal otom ñëw ba foofu def loolu Fissel production mën nañ ko xaar ëllëg tey fi ñu gis yeneen structures yi nekk ci làmb yi tëgg ay làmb yu mag dëgg la mais comme boo gisee loolu mënuñ ko am jàppale bi la ñu amul quoi dafa des Fissel mais tey yéen ñi ci ne Baye Sala ngee toog Ibrahima ngi ne la toog naar mi seen doyen la seen grand la yéen yàgg ngeen xanaa bu leen bu ngeen jàppee dëgër est-ce que bu ngeen yàggee ba yàgg du ngeen dem ba mel ni tey Gaston production Paf production muy Pape Abdou Fall ay Jéy production ay Bawol production yooyu yëpp war ngeen am wala gëmu ngeen lool. non bien sûr gëm nañ ko. loolu tax bi ñuy magasal mais bi ñu toogee waxtaan. dama ne bura kañ ñu liggéey. parce que lam war nañ koy yóbbu fu nekk foo xam ne fu nit war nañ fa mën a teg effectivement boo xam ne gars yi dañu jóge Dakar sax di ko seetaani fii mu ne ko loolu di problème sama ganaar lépp loo ma woo ma dinaa ci ñëw taxaw ci mais lam tey exemple dafa métti dafa métti surtout fii nga teg yeneen somme yi mm-hmm. nga yaakaar ci ay billets kese amoo benn parrain boo ko tuddee mm-hmm. day métti parce que gars bari war nañoo mën a gëstu lam fiisal daal mm-hmm. bu dee comme ñoom faata faata yi def tournoi war nañoo mën a ñëw teg fiisal parce que fiisal nekk na ñoo xam dañuy dund lam ak ñoom kii xam dañuy teg ay tournoi a ñëw teg fiisal ay somme 1 million wala 2 ñun suñu amoon somme boobu barke si ma dañ koy defee parce que ñun lam rek la ñuy dund mais wañ bu ne si benn lay commencé yaa ngi ni teg fa trois cent cinquante mille waaw ëllëg mën ngaa dem ba di fa teg ay somme trois millions ah boo ko gëmee waaye loolu moom ñu ci gém-gém boobu so incha allah so loolu yëpp nañ ko rom yéen yéen a fa dëkk yéen a ko mën a defar yéen ay doomi ficelle waaw comme maanaam donte ni dina ñëw jàppale leen ci mais yéen bu ngeen ci jiitoo rek day yomb ci waaw ah, dëgg la parce que man bii mooy sama quatrième jour na ma tegee fa mu day fees del ba bi a jeg ñoom Cheikh Tidiane ñëpp ñoom ñëpp dañoo daan premier tour ndax lam ji de ñoom Cheikh Tidiane amul kenn ku fa mbër bu mag fu ku fa mos a dugg booy ter nañ la gon fii la bari na ay mbër xam lan lañ manqué ay jàppale waaw euh, kookoy kookoy Bouré léegi looy tàggutoo ci séréer waaw sim naa waa fii sel fop rek sim naa Baye Sall fa nekk mi yoon tuuma fa Ibrahima Faye eh, sim naa Baye Naar sim naa waa fii sel fop sim naa xore fa ne ma ter fa gay ke fii sel in way sim naa na papa i ngeewa dame tem des na paax paax simna reftuma difonse simna grand ga defema fop xa Saliou Dione l'an 2000 Ibou Ngoy ñoom xaa su ma limee da damay juum ñoom Mastin ñoo gaay yooyu yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom jibi seen géej seex ñing di nuy ñoo xam ne amateur dañ koy dund di nuyu kii ñoom kii ñoom Papa Dema waa amateur yi ñu defee quoi dañuy dund lam fépp fu lam nag maanaam daaw jëri tuddoon naan drapeau ñëw defal lu rëy waaw waaga amateur yi def ka ñoowe lama ñowoon ñowolaan maanaam waxa Abdoulaye Tine Adama Diop Abdou Diga Papa Demba li ma raxam juma mam du ni Fissel production yéen a ànd di ko di ko doxal ah? waaw gis nga Fissel production moom sama xarit la sama nit la quoi ndax moom euh, mu ngi nekk bu divorcé man maa ngi nekk bu Colobane xam nga divorcé moom am na ñu bari ñoom xam ne war naa mën a liggéey ak ñoom mus bàyyi ñëpp ñëw ba ci man woo ma expliqué ma problème bi yëpp ma ne ah man de man lu yëkkati Fissel maa ngi ci mu wax ma ñu tënk ci ay kaddu dem lijjanti affaire yëpp bu mu taxaw. waaw mu ne ma kii xam naa xaaritam la man xaw ma ko bu baax sax. Mhm. c'est la première fois ma gis ko. mais nit ku baax la. nit ku baax la wax dëgg yàlla ndax kii nii bu mën a yëkkati kii ñëw bu fii ci këram mu bàyyi lu mu doon def yëpp. te gis nga li dañ ko fekk ci xat-xat mu bàyyi lu mu doon def yëpp ñëw bu fii xam nga loolu yëg-yëg la. bilaay ñun moom li ñu ñor na fiisal avance ndax boo demee Joal pa ñu teg ci lamb ay 2 millions 3 millions war naa mën a fiisal ndax ay nit ñoo koy def quoi ñun am nañ gëm boobu boobu am nañ ko te war nañ koo mën a def sax te bu soobee yàlla tey la ren bi mooy euh, deux mille vingt et un balaa deux mille vingt deux bu soobee yàlla dinañ fa teg ay millions yu bëri. incha allah waaw bu soobee yàlla. kontaan ci yow. waaw ñoo far. Baye Sall borom pièce détachée ngay. koo koy Baye Sall kontaan naa ci sa jaajëf yow war nga am loo ko wax de parce que Jibson production waroo ah. voilà Jibson <laughs> production loo koy wax suñu grand boobu suñu mag jooju. kooku nit ku baax a ngi noonu. Jibson barke sëñ yëpp moom la nag. billaay lépp moom la. Hmm. parce que saa yi ma jaaxee wala ma bëgg a def dara xaw ma ni may def damay couper sama plat dem ci moom toog waxtaan moom. Mm-hmm. mun a bëre nii ak nii ak nii ngay def. Mm-hmm. parce que kooku borom xol bu rafet mooy def loolu bu ko neexoon maanaam day tëju. Mm-hmm. du ma ubbi parce que am na ñu bari ñoo xam jege ñoo maanaam dañoo nekk ci aar bi. mais pour nga wax ak ñoom sax doo ko am. duñ la may caractère dañuy soo ñëwee dañuy caractère wala dañuy tëju pour da leen di nuyu sax duñ leen lijjante mais maam saa yi ma ñëwee waxtaan moom damay damay ubbi lépp ne bu dee lii ak lii la kon kooku borom baax la. ak looy mujj a wax euh, sénégalais yi nga xam ne ak ban appel ngay lancer sa mbokk yeeg sa xarit yi pour lan lendemain tabaski ca Fissel ak Fissel production 350 mille ñu teg ko fa muy mise bi ñu duppee la ko ban appel ngay mujj a ñi nga xam ne ñoo lay seetaan. waaw li may tàggatoo mooy maanaam ñu jàppalante suñu biir rek xam nga tey moom Fissel moom ku ne xam na moom làmb moom suñu deret la ne k non dëkk moo fa sax mais dama fay dem quoi. bari naa fa parce que bari naa fa xarit te kam ñun euh, làmb moom dafa neex yaakaar naa laa demee tabaski moom kenn deful dara dem kaf foo reetaan ma fa daal ànd ak ko quoi yaru bàkku bàkku bu sel wiise bëree bëri bu sel wiise après yaa ma gën a xam quoi jaagar jaagar yi <laughs> loolu laa wax ci mbëri ko que le maire waaw di laa une appel tamit ñun ñu doon ay xale comme ni quoi pour ñu jàppalante dimbalante fii milliard amul million amul cent franc amul jàppalante suñu biir kese moo am nit ku nekk li nga am nga yéene ci sa morom kenn bañ a déranger kenn kenn bañ a nax kenn kenn bañ a dox ci kaw kenn kenn Sénégal jëm kanam quoi il faut ñu def la suñu biir bopp yi quoi parce que àdduna bi léegi ñëpp a yeewu nañ leen yéenante jàmm di jàppalante ba pare di waxante dëgg suñu biir affaire bi loolu dong la mais pas ay yaa ma gën a xam quoi tegante duur ak dóor mbagg yeeg tëddal ma joggi laak yooyu ak yàqante bi amul sens quoi man gëwuma yooyu quoi xol bu rafet dox yàlla suñu borom mooy dogal quoi yàlla na yàlla suturaal ñu ñëpp yàlla aar ñu ñëpp affaire bi neex ci jàmm tabaski gi ñëw ci jàmm ñu feete ko ci jàmm ñu ñëpp ci barke Seydina Mohamed yàlla na ko yàlla defal. Euh, kon gars yi leer na nañ bu leen ko fàtte date bi incha allahu rabbi lendemain tabaski lay commencé làmb ji ca fisel Mbazane ak Fissel production bure ak ñoom Baye Zal ne ci kaw ah ak Ibrahima ñoom ñoo tëgg foofu làmb lendemain tabaski teg fa trois cent cinquante mille lendemain tabaski lay commencé mais nag jeexintal ba ca ginnaaw suba sa la hmm? lay commencé. waa ah, tabaski ci ngoon lay commencé di moise maa ngi jéggulu kon na leer tabaski ca ngoon lay commencé final bi mooy nekk lendemain ba yaa ngi dégg maanaam kon bu tëbaskee bu gars yi laajee ndewenal ba ñibbisi nag ba toog ba dallu dox ndànk dem ca làmb ja ci ngoon maa bi guddi gi hélas ñu seetaan làmb bët set ñu nelawiwaat ñëwaat mu jeex noonu la demee drapeau naar ñaan doomu ndaw yi si tàgg ma Sène ak Balla Gaye ak Modou Lo xam naa nag mu féppi xarit borom bëri warom mbër yu bari yi waaye li nga wax waa parcelle lañ lay dégg te waa parcelle moom xam naa ku leen caw xiir gi ne wax sagara nañu fayu di kontaan ci ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di jox gars yi di daje beneen yoon incha allah rabbi